Euh, Fallou Mbacké abi <laughs> dégg naa say kàddu say wax rafet na maanaam man daal dama nekk benn demo lépp lu nekk lu lépp lu bon ci àddina rek man dama koo def man maa ko yeloo ma maa def loolu yëpp d'accord amul benn problème man nag duma fi nekk di débat di fekk ci say ay kàddu parce que ku amul loo téye yaa mottali koo làmmiñ man dama téye dama téye ay preuve newoon naa du ma wax bés bu wax jotee dinaa wax te incha allah lépp dina leer de A à yow xam naa ne bés bu ma génnee ba teg li may teg ci kaw taabu bi yow Sénégal doo to fi jarate dara amoon naa lu ma doon seet nag de ndax say waajur sa yaay ci boppam soxna ñaxat daf ma ñaan ma bul wax bu mu ñaaw jàppal sa moo sa ñaambur boobu léegi boobu ba léegi waxuma ci debaaw ma ci clash ma la traaku ma la maa ngi toog jàpp sama ñaambur waa léegi yow lan ngay xaar ba dem extérieur du soogu ubbi sa jéem di wax lu tax nga nekk Sénégal ma nekk Sénégal temps yooyu yëpp defoo réaction yaa ngi toog ne pat ak organise nga bàyyi ba génn dëkk bi nga xool ni nga foog ni yow tu ne tu es à l'abri de tout kenn mënalu la dara nga soog a toog fi nga toog di di falme di wax lu la neex la wax lu la sax man nag euh, comme que dama euh, nekk ci tànk dem ak yow fu mbaxane doonee benn kon du ma du ma la topp dans ton jeu continue à t'incriminer amul benn problème man maa ngi yor samay preuve yor li ma yor te incha allah Sénégal ñëpp adduna bu wërgal ñëpp dinañu xam yow yaay kan ñu xam yow yaay ban façon nit yow yow <laughs> duma ci sax xuus par contre dafa am loo xam ne wax nga ko ci say ay kàddu nga ne da nga jug noonu pour yàq ma yàq sama àddina tuuti nga ci sëñ Fallou Mbacké loolu danga cee tuuti torop danga cee tuuti torop mënoo may yàq mënoo yàq sama àddina man nag débat bi nag dinañ ci xuus waaye du doon léegi du doon léegi incha allah lépp dina feeñ lépp lépp lépp lépp euh, mes amours prenez votre mal en patience c'est pas parce que dama ne tekk tekkaaral noppi rek ni je n'ai pas d'argument je n'ai rien à dire que que ni pas li mu wax lépp dafa am yow Fallou abi nga ne man dama bon te moo naam a trois jours yaa ngi may woo téléphone jëluma la tu marcel tu m'appelles tout le temps je te décroche pas tu m'envoies des ne te pas yooyu yëpp ma téye ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yow nga ne yaa toog noonu am sa aigreur nga ne yaay ubbi sa jéem nga ne dangay wax yow su ma waxulee waroo wax te ba loolu weesoo pour ne pas trop rentrer dans les détails li tax sax li ëpp ma génn di wax il a sorti quelque chose comme quoi que ni waaw euh, man damaa def chirurgie esthétique ba sama euh, kii dama chirurgie samay ween ba samay ween am problème ba samay ween am problème que ni je souffre xaw ma lan ak lan ak lan je sais pas quoi encore comme connerie qu'il a raconté man de dara jootuma maa ngi sant alhamdulilah. jamono ba ma doon sëy ak yow ñu détectel ma ay kyste ci ween ma sonn loolu guddi duma nelaw sama ànd ak tàngooru yaram boo xam ne foog naa ni sax ni que dama am tumeur wala cancer wala dara ma di ko souffrir may dem hôpital sa dërëm topp ma maa doon jël sama xaaj dem hôpital di def samay ana def samay yëpp et je vais ngay nekk lu ne nga di ko wax lu ne nga di ko inventé nga ne man nga mën yàq man mënoo maa yàq galas tuuti nga ci man na dafa amoon lu ma doon seet ba boobu yëpp li nga def lépp nag ma nëq nëq ko tey samay preuve toog ci parce que su du dara sa maam la ñuy moom la ñu yaakaar tey ak ëllëg yaakaar suñu tey yaakaar donc rien pour ça rek amoon naa war warmaal ci yow amoon naa lu may seet yow ba lu bëri li xew yépp dama nopp rek na pat jàpp ci yàlla xam ne ku nekk ku ne tekk tekk war la yoon donc man yaakamtiwuma tu peux tu peux tu peux sortir nga wax lu la neex nga wax lu la saf defal lu la saf kenn du la ne wow na kenn du la ne doy na bàyyi naa la nga àppoo wax bi man ma àppoo jëf bi c'est pas parce que tu es du Sénégal tu penses que tu es intouchable tu n'es pas intouchable te yow incha allah man maay génnee preuve yi nak tegal la lépp yow sa àddina dama koy teg comme film dama koy épisode 1 épisode 2 épisode 3 télénovelas laa koy def ndax novelas nga joué ak man waaye amul benn problème comme que yow seetoo fi nga jugee seetoo ci ñi nga bokk ba waral ngay def bases yi yu mel nii nii nii nga ne yow da ngay njëkkantu man aw sa jot wax say wax Fallou boobu ba léegi bu ñu tasee ba léegi tooguma ci benn média wala B duguma ci benn groupe yónniwu ma benn jeeg pour ñu lay clash wala quoi que lu ma waaye waxal rek maa ngi toog def patak organiser jàpp samay sama ñaambur débaaw ma ci waxuma ci defuma dara maa ngi toog rek noppi te pourtant akamaa am lu ma mën a wax te damay wax te incha allah dana wax ba fa ma war a waxe jee te ñi ci war a jot ñëpp dinañ ci jot lépp dina leer ci bopp ñëpp jaruta yàkkamti dégg tëll ne damm na jaru ko moo je suis très zen si tu penses que li nga def nii dina tax duma lekk duma naan duma dox samay activité du ma def samay course yàq nga ko yàq nga ko na dangaa tuuti ci yàqal ma dangaa tuuti ci détruire ma dangaa tuuti ci tuutil man mënoo maa tuutil ndax yow la nga def def c'est c'est trop baax moom musuma xalaat sama mi sama àddina ni min def capable naa def ni ma ni yow li ma dund ak yow yëpp yow nga ne yaa ma fase <laughs> loolu leer ci incha allah lépp dina leer preuve yaa nga fi tuute laa waaye nag dañuy teg lépp ci yoon on va pas rentrer dans le désordre on va pas salfaañee daal yow yaa àppoo wax jeeg dugg fii génn fële yooyu noonu noonu loolu nga am tu n'as pas de preuve ndax nit ki soo jekkoo c'est que les euh, barigots vides qui font beaucoup de man dama xam ci lu ma toog dama xam ci lu ma toog ci lu assuré laa toog. j'ai mis le nom le nom de lañ ma diagnostiqué ne ma la madame la nga doon xalaat lépp du tumeur du cancer du dara kyste nga amee kyste. au niveau des deux sens c'est des nodules yoo xam ne c'est à traiter ma nekk ci traitement na traitement boo xam ne fekk fekk fekki woo ma ci fiftim lépp maa ko defal après la tabaski la grande promotion s'installe ci boutique techno samsung bi nga xam ne daf leen di jaay ay téléviseur marque yu dëgër te baax bi nga xam ne moom la ñëpp ji muy marque amk ma ne la téléviseur bu baax baa ngi ni ay ledd yu baax lañ lay jaay 19 pouces bi ñaata la ma ne la 32 500 francs CFA ndaw kuy maye 22 pouces à 37 500 francs CFA bu fekkee 32 pouces bi la nag ma la koy jaayee 77 500 francs CFA smart tv yu baax te dëgër am nañ ko fi itam boo ci soxlaa fois pour dañ la koy sax far may nag ñaata nga ne ma cent cinquante cinq mille francs CFA li gën a yomb téléviseur ni mu gën a dañ la koy jaay ci ni mu gën a yomb livraison gratuite partout à Dakar foo nekk ci Dakar ñu daal la koy livrer gratuitement boole kook nag defal la ci li nga xam ne moom moo di garantie fan la ñu nekkee ma ne la xanaa ci avenue Malick Sy fi dend ak jumaay Umarienne ci corniche bu Ndakaaru Njaay bi jokkool ak ñoom gaaw ci 77 466 88 88 77 466 am ci 88 88 boutique Samsung Techno bi yemuñu rek ci télévision am nañu ay réfrigérateur am nañu itam ay cuisinière ak yeneen bagage yu ngeen fiy tëwoo daw leen gaaw yéex ñàkk te itam romb ci réccu del déglu del xool Feeling Feeling Dakar di nga am info yu leer ci people et sport politique Dakar